أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi comme nin ko baaxee du def ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratul maida ci kàttanu borom bi nu ngi jël tey ñaari aaya aaya 65 ak aaya 66 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala moo nu ci jàngal dig gi mu dig ahlul kitaab sunu borom subhanahu wa taala dig leen ne leen nangam de buñ ko defoon sunu borom nee na dana leen dugal aljanna kon ahlul kitaab ñoog borom bi tabaraka wa taala wàccoo nañu ku yàlla dig buur bu tol ne yàlla ne nangam bi boo ma ko defalee danaa la dugal aljanna kon lu fi desati bu doon ne kenn la ak woy juram wala patron wala kilifaam wala wala wala mu dig la ne la nangam bii soo ko defee ma defal la nangam te nangam boobu nga bëgg ko kon li jaadu mooy la la kilifa ga dig nga def ko buur bu tol ne sunu boroom subhanahu wa taala daan ne ahlul kitaab yi suñu gëmoon yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu gëm li yonent bi indi ci diine ji ñu jëfe ko ñu mooy tandiku bokkaale mooy tandiku kéeféer mooy tandiku bàkkaar yu mag yi mooy tandiku ñaaw téef yeeg yu bon yi borom bi nee na ñaar laa leen di defal danaa leen jéggal seeni bàkkaar waaye danaa leen dugal aljanna kon li ñu sunu borom di jàngal tey ci aaya yi nekk sunu kanam mooy dig la leen yàlla defal dig waaye comme dañoo bon yiis gën a bon ci li yàlla bind moo tax la leen yàlla dig respecté wuñ ko moo tax yàlla xañ leen lam leen waxoon loolu luñ ciy jàngee ñun jullit ñi mooy buur bu toll ne yàlla du waxantu su sartonte ak jullit su sartonte ak am mbindeef nit dara nit ki dafa war a respecté loolu te bu ñu fàtte ne ñun alquran bi yàlla di ñu wàcc wàcceel ñu di ñu ci wax melokaanu yahud yi ak la yàlla sartoon to leen ak ñoom démb ñu dajji ko maanaam yàlla daf ñuy wax loolu pour ñun ñu xelu léegi léegi damay waxtaan ak kenn ma ne ko fu nit fu nit jaar wàcc guddi jaar fa ñu toj ko ka ñu toj kaabaabam gi daal di koy pes rël agressé ko suba su wàccee même heure ndax dafay jaaraat. ah lu tax ndax dafay bañ la ko daloon dimb dalaat ko tey maanaam kon ahlul kitaab bu leen yàlla waxee nangam ak nangam bu ngeen ko defee ma defal leen nangam ak nangam ñu jalgati ko yàlla duma leen kon ñun suñ déggeelu lu nu war nu mooy tandiku la dal ahlul kitaab balaa munuy dal ñu wat tandiku la ahlul kitaab def ba yàlla jéppi leen duma leen ñun ñu daw loolu waaye tey li ñu gis mooy li yàlla xase yeneen xeet yi ñun tey ñoo ko def li yàlla meree yeneen xeet yi ñun tey ñooy jalgati di def yooyu loolu mooy lu jaaduwut loolu mooy lu njëkk lu ñuy jëlee ci aaye yi ñaareel mooy waadullahi taala li ahlul kitaab yàlla dafa digaat ahlul kitaab su ñu ne ahlul kitaab nag loo ci dégg mooy yahut ak nasaraan yàlla def leen dig ne danaa yaatal seen wërsëg waaye bi sart encore ati su fekkente ne taxawal ngeen tawraat taxawal injil jëfe li nekk ci tawreet ak injil waaye ngeen jëfe li ma mujjee wàcce muy alquran mu jóge ci seen boroom su ngeen ko defoon yàlla tabaraka wa taala nee na ngeen gëm sama woote yonent ngeen dugg ci lislaam kon da ngeen am ci loolu lu benn xeet amut kon gis nga ahlul kitaab leen yàlla wax li tax mënuñu koo am mooy weddi gi nu weddi islaam ak sayyiduna muhammad nangu nañ ne yàllaa yàlla nangu nañ ne yàllaa yónni ibrahim nangu nañ ne yàllaa yónni Musa nangu nañ ne yàllaa waaye lañ seen problème mooy islaam ak sayyiduna muhammad loolu lañ munta gérer waaw li muhammad yàlla tànn sayyiduna muhammad yónni ko ci beneen xeet mu yor yor beneen làkk nekk arab juddoo ci arab yi yàlla def alquran arab yàlla jox ko islaam lool la ñu mënta muñ moo leen metti mooy dagg seen xol yi looloo tax lu leen islaam indil lu leen alquran wax lu leen sayyidina muhammad jàngal ñu laa nga ko dem uti leneen loolu nag li ko waral yenn saa yi mooy fiiraange rek ak soxor moo tax yonent bi di ñu tere iñaan ak soxor ak mbon ndax lan xam ngeen ne aadama bokk na ci li ko génne aljanna mooy iblis soxore gi ko iblis soxore ba fexeel ko ba ñu dàq ko foofu iblis dara taxul yàlla dàq ko ci yërmandeem lu dul soxor gi mu soxore aadama kon nit war a dindi soxor ci xolam nit dafa war a dindi mbon ci xolam ak iñaan su yàlla waxee dara bii maa ko jagleel nit wala maa ko may nit nga nangu ko waaw nga nangu ko ci soxal ne yàlla moo yore xéewali moom moo koy séddale zalika fadlullah yutihi man yasha yàllaay séddale yàllaay joxe taraanga yi ci loxo yàlla la nekk su ko yàlla mayee ab nit na nga ko nangu nga xam ne yàlla moo ko def yàlla moo may julli di sayyidina muhammad moo leen jox islaam moo leen indil alquran moo leen def ñu nekk ngën gi xeet kon ku ci soxor ku ci saxol tàng da ngaa nar a alku rek waaye yàlla moom li mu doon def def na ko ba pare kon mbokki jullit yi ñaari aaya yooyu ñaari mbir yooyu lañ ciy jëlee noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu génn téeram bii di alquranul karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون سنو بروم نه ولو ان اهل الكتاب تي soko déggee nag mooy yahud ak nasaraan cey su fekkonte ne ñii di yahud yi ak nasaraan yi ñoom la yàlla di tudde ahlul kitaab ndax ñoom la yàlla joxoon téere te mooy injil ak injil ak tawraat tawraat mooy bi njëkk a wàcc moo wàcc ci Muusa alayhi salaam ba ca tegu mooy injil moo wàcc ci Isa alayhi salaam benn bi wàcc ci yahudi benn wàcc ci nasaraan yi yàlla mu ne walaw anna ahlal kitaabi cey su fekkoon ne ñoñu téere ya mooy yahudi ak nasaraan yi amanu gëmoon nañu yàlla gis ngeen de fekkoon ne cey gëm nañu yàlla mooy amanu billahi wa rasulihi gëm nañu yàlla ak yonentam wa bima jaa min addiini alxaq wa amilu bi ñu gëm li nga xam ne moo jóge moo ñëw ci diine ji di lislaam ñu jëfe ko du ñu yem ci rek gëm yàlla jëfe téere yi waaye wattaqaw ñu moytandiku ñu ragal yàlla wattaqaw alkufra ñu ragal kiifir wattaqaw ashirka ñu ragal bokkaale wattaqaw kabaira zunub ñu moytandiku bàkkaar yu ngand yi wattaqaw alfawahish ñu moytandiku ñaaw téefi cey ahlul kitaab buñ defoon yii proposition yi yàlla tegal leen yoon wi yàlla rëddal leen ne leen buñ gëmoon yàlla gëm seydina muhammad jëfe li yàlla wax ci tawraat ak injil ñu jëfe li yàlla wàcce ci diine jii di lislaam ñu moytandiku kéeféer moytandiku bokkaale moytandiku bàkkaar yi ak ñaawteef yi cey ahlul kitaab buñ defoon lii lan la leen yàlla defal mu ne la kafarna anhum danaa leen jéggal waaw waaw la kafarna danaa suul lan laay suul mooy seeni bàkkaar waaw la kafarna anhum danaa leen jéggal sayyi'aatihim seeni ñaawteef yi kon xoolal ñoom ñaari mbir la leen yàlla wax ginnaaw li yàlla wax leen ci gëm jëfe tawraat ak injil gëm li mujjee wàcce muy alquran mooy tandiku li leen yàlla wax yàlla nee na lii buñ ko defoon rek ma jéggal leen seeni bàkkaar waaye du ma yem ci jéggal bàkkaar yi waaye wala adxalanna wala adxalnaahum danaa leen dugal jannaati naim allahu akbar danaa leen dugal kër googu di aljanna di këru xéewal kon li tax yàlla baalu leen kon xam nañ ko li tax yàlla dugal leen aljanna kon xam nañ ko leer na soo defee nangam ak nangam ak nangam dinaa la defal nangam ak nangam kon balaa ñu lay defal nangam ak nangam bi sart bi fan la nekk nga def nangam ak nangam léegi nag lii yàlla wax ahlul kitaab suñu gëmoon yàlla mooy tandiku yàlla nee na naa leen jéggal seen bakkaar dugal leen aljanna nun nu dégg loolu yàlla wax na ko ci suñ téere bi muy alquran kon ñun lu nu war suñ déggee loolu nun lu nu war kon danañ xam ne lépp lu nu wax lépp lu nu wàcceel dañ ko war a jëfe balaa li dal ne dal nu waaw mu ngoog nit lan la xel di jëriñ mooy xalaat ànd lan lay jëriñ mooy da ngay jàng ci ñi ngay àndal ñi ngay dundandoo da ngay jàng ci ñoom waa ji kat lii la def échec waa ji kat lii la def ñu duma ko waa ji kat lii la def yeggut waa ji kat lii la def projet bi yàpp waa ji lii la def réussirul kon yow buñ la woowee di la jaarloo foofu nooy def nga moytandiku njuumte yi waa ji defoon yëpp nga teggi yoon yi bu dee yoon la nga teggi bu dee ay erreur la nga bañ ko def kon tey bu nu yàlla waxee waa banu israil yahut ak nasaraan sunu gëmoon yàlla jëfe santaane yàlla yi yàlla nee na danaa leen jéggal seen bakkaar naa leen dugal aljanna kon yàlla bu la waxee duma naa leen bu la yàlla waxee mbugal naa leen bu la yàlla waxee dugal naa leen safara sa xel ci lim war a njëkk a dem mooy dañoo lànk bañ a def li yàlla wax moo tax yàlla duma leen ndax yàlla tegaloon na leen ay yoon ne bu ngeen defee nangam ak nangam ma defal leen nangam ak nangam samay xéewal mooy ma bàlla sama ma bàlla bàkkaar yi ma dugal la aljanna lu tax mooy da ngay jëfe li ma la sant nga moytandiku bàkkaar yi kon loolu lu lay lu la loo ciy jëlee mooy yow soo bëggee dugg aljanna boo bëggee yàlla baal la da ngay jëfe li la yàlla sant bàyyi lim la tere jeex na kese soo jëfee li la yàlla sant bàyyi lim la tere ak koo mën a doon ak foo mën a juddoo ak foo mën a faatoo loolu bul ko ragalati bu ragal yaay kan bu ragalati aw ma doole bu ragalati dama ñuul bu ragalati dama faxiir bu ragalati dama bu ragal déedéet parce que yooyu du critère yàlla di tànnee yooyu di critère yàlla di dugal aljanna yàlla waxul dinaa dugal kenn aljanna c'est parce que dafa xees wala jàngeen lool am na ñoo xam dinaa leen dugal aljanna parce que dañoo xonk am ñoo xam dinaa leen duuma parce que dañoo ñuul fan la yàlla wax loolu inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a baax ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla laa fadlun li arabi ala ajam illa bi taqwa ku weex gënul ku ñuul lu dul ci ragal yàlla gaa yi loolu bu ñu koy wax bis bu nekk suñu xel war na dem ci bilaal bilaal nu mu meloon ah dafa ñuuloon ana mu tey ma nga aljanna gaa ñi ana abu lahab ma nga safara dafa xeesoon wala dafa ñuul waaw dafa am ñetti abu abu lahab abu jahlin abu taalib ñett ñëpp a nga safara umu jamil umu jaadar umu jundub ñett ñëpp a nga safara te ay qurayshi lañ yu xonq cooy weex tal ba pare bokk ak yonent bi deret waaye yàlla xoolul deret même tabaski yàlla lim ñu wax ci tabaski mooy xooluma ngandaayu xar bi du béjjéen yi laay xool du kawar gi laay xool du couleur gi laay xool xam nga ñun fii tey nit buy jënd tabaski looy njëkk a xalaat bañ nga sax ba da ngay ànd ak sa jabar boo yoree xaalis dëgg da ngay ànd ak sa jabar waaw boo boo dee boo romb mu ne la rombal rombal rombal nga bëgg a dem mu ne la nijaay nga taxaw yenn saa yi nga ànd ak sa jabar ànd ak say doom jabar ji di xool ngandaay xar bi xale bi di xool béjjéen yi waaw xale yi moom béjjéen yi rek te jëfaay ñu ne la ah booy kaay xool suñu xar nii la béjjéen yi def bu dee jabar ji moom mu naa la kaay xool xar bi ngandaay bi yow nag léegi loolu loo ci am yow mi yow mi nga xam ne yow yaa demoon jëndi ah amoo dara dul yàpp loolu tax yàlla nañu lan yanaala allah luhumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret bi soxlawuma der bi xam nga la laa soxla ragal yàlla gi man yàlla maa la wax defal nga def bi ngay def nga seet man yàlla li ma neex li ma bëgg nga dem def ko moo tax sunu jaamu yàlla yi fii pour mu pour mu pour mu sell day doy waar trop foog ñu génn ci sunu bëgg-bëgg ñun génn ci sunu bëgg-bëgg njaboot génn ci sunuy bëgg-bëgg soxnaa ki nangam ak nangam jaamu yàlla boo ci dugalee sa bëgg-bëgg yow wala nga dugal ci sa bëgg-bëggi doom wala nga dugal ci sa bëgg-bëggi jabar rek yàlla da ciy génn parce que yàlla li muy santaane santaane wu ko ndax mu neex nit wala mu naqari nit yàlla moom li mu bëgg la santaane dafal la wax waaw su fekkee yow nag léegi da nga koy def di ci xool lu neex nit wala lu neex sàmba wala lu neex demba bu yeboo nga xam ne perte nga kon ñi jël aaya rek di romb di dem sunu borom dafa defal alul kitaab ay proposition charte sax la teg baatu law la jiital yéen yaa ngi arab law lan la walaw anna ahlal kitaab tey su fekkoon ne ñooñu téere ci yahud ak nasaraan amanu gëmoon nañu yàlla ci baatu baatu amanu xam ngeen ko baatu iman suñ ne al iman iman dafa am luxatan ak istilaaxan ba pare iman am arkaan loolu yëpp nag boo ko boolee mooy iman suñ ne ngëm bu ko jé bu ko bul ne gëm yàlla rek na pàtt dem déedéet da ngay jël ñett ñett yëpp jëlal ngëm yàlla mooy lan ci luxa nga jël ngëm yàlla mooy lan ci istilaax nga jël arkaanul iman soo boolee yooyu yëpp nag léegi muy ngëm yàlla nee na ahlul kitaab bu ñu defoon loolu gëm yàlla gëm yonent bi gëm téere yi gëm yonent yi gëm alaaxira gëm dogal bi neex bi naqari jëfe li islaam indi ñu def loolu ba pare wattaqaw ñu ragal yàlla ñu moytandiku lan la ñu moytu moytu kéeféer jullit day moytandiku yéef kéeféer yàlla boo waxee li ahlu kitaab jullit yee ci yey su fekkoon ahlu kitaab kese la ko yàlla adressé kon duñ ko wax ci alxuraan gi duñ ko nettali yàlla dafa bëgg ñu moytandiku kufru kufru mooy lépp loo xam daf la yóbbu ci kéeféer te tey xam ngeen ne àdduna bii nuy dund ay jëfam fi ko koy jëf rek da ngay nekk yéeféer bu la neexee ngay julli nag di continuer waaye yéeféer nga lu dul nga tuubaat moytandiku loolu waaye moytandiku bokkaale gis ngeen bokkaale bariñ na ko ba yonent bi daf ci amoon ñaan di ñaan yàlla yow yàlla yàlla nga ma musal ci bokkaale bu ma yëg ak bu ma yëgul ndax bokkaale dafa sew axfa min dabibin namla néew na tey ku ci mucc waaw bokkaale dafa sew sew lëndëm ba néew na ku ci mucc wala yonente bi doon wax yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bokkaale bu ma yëg ak bu ma yëgul nga moytandiku loolu moytandiku bàkkaar yi yu ndaw yeeg yu mag yi suñu yàlla nee na waa ahlul kitaab buñ defoon loolu la kaffarna anhum sayyi'atihim kon danaa leen jéggal seeni bàkkaar waaw duma yem ci baal leen jéggal leen waaye wala adxalnaahum danaa leen dugal te laam gi kat laamul xasam la yàlla daf cee boole ngiñ ak nuun tawkiit mu ngoog wala adxalnaahum danaa leen dugal jannaatin aljanna joo xam ne an naim ajjanay xéewal la waaw waaw ndeysaan waaw kon nag mbir yaa ngoog ku bëgg yàlla dugal la aljanna ku bëgg borom bi baal la borom bi nee na kon su ma la santee rek defal daa leen jéggal dugal leen aljanna kenn dootu leen jàppee walam yu aaxisuhum yàlla dootu leen jàppee walam yafdawhum dootu leen gàcceel ah dana leen dugal aljanna boo xam ne loolu xéewal la mu ne wa haza waadullahi taala lil yahud lii yàllaa ko dig yahud yi est ce que ñoom rek la wan nasaara ak chrétiens yi waaw walaw annam amanu wattaqaw la anjazahu lahum qat an suñ ko defoon wallahi yàlla dana leen dugal aljanna yàlla dana leen jéggal seen bàkkaar ndax yàlla du waraate yàlla du la wax defal ba pare nga def mu naa la nax naa la nax naa la ah yàlla du buur boobu waay waaw yàlla ku mu liggéey loo fay ko iblis ba ko yàlla ne liggéeyal mu liggéey yàlla fay na ko wala fay ko yàlla fay na ko yàlla du liggéeyloo nit mu def ba pare yàlla bañ kaa li mu li ko yàlla waxoon yàlla ne ko du ma ko déedéet yàlla du buur boobu mukk du ko musa mel loolu melokaanu doomu aadama la doomu aadama mooy sakk jëf doomu aadama ngay sonnal nekk ci naaj bi mu nekk ci kër gi nga pare mu naan la bon affaire bi xaw moon ne nii lay demee bon mais xaaral rek grawul quoi du ma la fàtte nag bàyyi fi sa numéro ngay ñibbi di màtt say la xonaar kii wóor na yàlla boobu refee ba wooma waaw kooku doomu aadama moom mel noonu waaye du yàlla walla moom bis boo taxawee ci naaj bi mu xam ne yaa tax nga taxaw ci naaj moo tax walla nga fanaan fi yàlla xam ne yaa moom moo tax nga fanaan fi day metti rek waaye yàlla da lay fay waaw gis ngeen yonent yi wala leen yàlla liggéeyloo ñoom ñëpp la yàlla fay wala nit ñu baax ñi rek ñoom ñëpp ba leen yàlla sonn loo yàlla fay na leen yàlla du sonn loo nit ba pare mu perte te yàlla bu la fayul fii ci àdduna dina la fay àllaaxira sikk nekku ci te sax li li li ñu gën a gis mooy da lay fay ñaar yëpp fay la fii ci àdduna ba mu ne fang àllaaxira mu fay la encore kon mu ngoog kon ahlul kitaab li tax yàlla dugalul leen aljanna li tax yàlla baawu leen seen bàkkaar ñoom la leen yàlla proposé lañ defut sunu borom indil leen ñaareelu dig bi mu leen dig mooy walaw annahum tey su fekkonte ne ñoom ba tey ahlul kitaab aqaamu taxawaloon nañ samp ko mu lan at tawraat téere boobu di tawraat wal injil ak téere boobu di injil ñu samp ko taxawal ko atte woo ko dund ko kon day suñu borom nee na ñu gis mus ñu gis jàmm duñ yem ci ñaari téere yooyu rek wa ma unzila ilayhim ak li yàlla wàcce ci ñoom loolu lan la ah mooy alquran tey jii bu fekkoon ne ahlul kitaab li leen yàlla wax defoon nañ ko mooy lan ah jëfe tawraat ak injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim wa min zalika alquranul karim alquran bii ñu jëfe ko wa maana aqaamu zalik ay amanu bil aqaid alsaxiixa ñu gëm pas pas yi alquran indi alwaarida fi tilka alkitaab te pas pas yooyu nga xam ne moo nekkoon ca téere ya wa amilu bi sharai alsalima ñu jëfe sharia bi nga xam ne moo wér wal aadaab alrafia ñu jëfe teggin yu yëkkatiku yi wal axlaaq alfaadila ñu am jikko yu leer yu rafet yi nga xam ne moom la téere yi ëmb ala nee na cey buñ defoon lool la basata allahu taala alayhim rizqa yàlla dana yaatal seen wërsëg kon danañ lekk de gauche à droite nu leen neex ñu lekk la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim gis ngeen danañ lekk ci suuf lekk ci kaw danañ lekk de gauche lekk à droite lu yàlla bëgg a wax mooy lan wërsëg wi dana walangaan ba nii la ñuy def rek côté yépp wërsëg bi wër leen waaye lu tax amuñu loolu mooy ñàkk a taxawal tawraat ñàkk a taxawal injiil ñàkk a jëfe alquranul karim bi mu jawàcc lii moo leen xañ la leen xañoon démb fee ñu jéggal leen seen bàkkaar dugal leen aljanna moo leen xañ fii wërsëg boo xamante ne amuñu ko kon beneen dénkaane ngoog bu ñu yàlla di leeralal ñun jullit ñi ndeke sababu wàcce téere yi du rek di jàmb di naan waaw sababu wàcce téere yi du jàmb di naan du du bind di takk waaw du man kataba wa allaqa waaw loolu ngay jàng tey ci téere ñu ne man kataba aaya kaza wa kaza wa allaqa aw shariba aw irtasala bihi loolu taxul woon waaj yàlla lan la wax ahlul kitab walaw annahum aqaamu tawraat cey bu fekkonte ne ñoom taxawal nañ téere bi téere bi nuñ koy taxawale ndax da nga jël téere bi rek daal di koy taxawal nii nii nii nii taxaw na de ah du lii la yàlla bëgg wax de du lii yàlla dafa bëgg wax ñu lan ñu jëfe ko mu ñuy àttee ñu ci àtte woo waaw kay nañ ko taxawal suñ amee problème daal dem ci téere bi aqaamu tawraat wal injil nekk téere yi dañ leen di àtte woo téere yi dañ leen di dund téere yi wàccul rek pour ñu def ko téere barkeelu comme tey li bokk na ci ñu alak mooy def alxuraan téere barkeelu ndeysaan téere barkeel waaw waaw aqaamu tawrata wal injil wa ma unzila ilayhim ak li yàlla wàcc ci ñoom naka lañ koy taxawalee yàlla wax na ko mooy lan jël pas-pas yi alxuraan wéral jël pas-pas yi yi nga xam ne moom la wàccee moom la wax ne lii mooy pas-pas bu baax waaye jëfe sharia bi sharia bi nga xam ne moo wér këng lenn wéru lu dul moom waaye jëfee teggin ya ca nekk waaye jëf jikko yi am jikko yi gis nga lii mooy li mooy islaam islaam mooy pas-pas la sharia la teggin la ay jikko la lii mooy lislaam su fekkee ne da nga ne gëm naa yàlla d'accord sa pas-pas la ñuy contrôler ci loolu soo nee gëm naa islaam ñu xool sharia bi soo nee man dama yaru ñu xool say teggin soo nee jikko bu rafet ñu xool sa melo sa comportement ñu xool jikko bi lii lépp nag alxuraan rek moo la ci mën a dimbali téere yàlla bi moo la ci mën a dimbali sa pas-pas wér nga dund diine bi ah nga am ay teggin nga am comportement bu baax lan moo la koy may mooy jëfe li la yàlla sant ndax téere bi dafa ñëw pour nit baax moo tax alxuraan lépp lu mu tere ne nit bu mu ko def soo ko càmbaree xoolaat ko da ngay fekk ne li doomu aadama waru ko def xool leen li alxuraan tere yépp lan ngeen ci xool ne cam lii da dëgg-dëgg yàlla waru ko woon tere wax leen ma ko balaa mu ñuy continuer lenn laa wax lu yàlla tere yéen ñëpp kenn na ko xool mu ne lii yàlla waru ko woon tere sàngara bu ko yàlla terewul woon sax nit waru ko naan ndax boo koy naan bu yàggee sax docteur yi tere la ko wala mu rey la ak encore xoolal boo ci dëkkee di ko naan fu mu la jëmee koñ ba nga dëkk sax dootoo am personnalité ah ak lan wala sàcc cey ngay sàcc di sàcc ba tabax R plus 5 benn bëccëg ñu jàpp la ci koñ bi nga dëkk ah ndeysaan agaar naa ne kër googu dootoo fa yeewoo dañ koy mujj jaay toxu ndax gàcce gi nga am yàlla lépp lu mu tere nit ñi su ko yàlla terewul woon sax nit war na rus def loolu wala mbaam xuux ya lekk yàpp mbaam mbaam xuux man damay faral di wax ne mbaam xuux bu ko yàlla terewul woon sax am na nit ñoo xam duñu lekk ginaar est xam ngeen loolu dañu xool ginaar rek ni mu mel nii rek ak li muy lekk yenn saa yi rek ñu ni sii man du ma lekk ginaar am ñoo xam duñu lekk kanaara voilà am na xool am na ñoo xam duñu lekk supp kànje xam ngeen loolu est-ce que tax ñu ne lii man nag di taxaay bi ak ni ma gisee ñu koy kii nii baax na lii mel ni ay yuut duñ ko lekk waaw xool leen mbaam xuux nag xool leen mbaam xuux gars yi est ce que gis ngeen mbaam xuux ni mel ni ko yàlla bindee waxuma dara sax waaye ñaawaay beeg ñàngaay beeg non mais ku ñu xas ne la mbaam xuux nga da ngaa war a xaru ci yow mbaam xuux nga bu ñu nee mbaam sax xëy na di nga tane ndax mbaam bële rafet na waaye buñ ci eggee xuux bu yeboo nga dugg ci pax mbaam xuux dafa ñaaw dafa salte non lépp la boole gars yi nee nañ ñi am na ñoo xam ne da ci àll bi lañ dëkk amuñu ay duus mbaam xuux mooy oto mbalit bi waaw lépp lay lekk tout du bàyyi dara mbaam xuux lépp lay lekk dara ah waaw waaw gis nga bu doom juddoo bu ñu ko séparal mu lekk doom bi xoolal loolu loolu nu ko nu ko nit di lekkee kon kay xam nga yàlla lu mu ne bu leen ko lekk dëgg la moo tax dama ne la yàlla amul lu mu ñu tere lu dul soo xoolee yow loolu bu la ko yàlla terewuloon sax boo ko xoolee nii rek war nga ne non lii du ma ko lekk man. parce que boo lekkee yooyu yëpp da ngay mujj mel ni ñoom kii waaw. waaw yenn saa yi sax nga gis nit ñi ne kii de moom bañul dara lu ñëw mu lekk ñu ne moo tax gisoo ko ni mu mel. waxuma la ak nag ay mbaam ko ak ay kenn xamul ah ay surtout nag ci jikko yi ci jëf yi ay sàngaraak ay sàccak ay fenak ay kartak ay njaalook wala njaaloo fi mu nekk ni am na ñoo xam ne bu ñu xëyee njaaloo dañ yaakaar ne nekkuñ ci jàmm xale bu jigéen bu leen romb rek yaakaar nañ dañoo war a fanaanoog moom tey boo leen ne woon ne alma sa doom wala jox ma sa yaay wala jox ma sa mag bu jigéen wala sa rak da ngeen di xeex ba dan jant bi soo duñ la bàyyi pourquoi nga may wax loolu ah kon kay yow ni nga ko bañee sa bopp war nga xam ne baaxul parce que bëggoo loo ko def ah voilà tey jii ki dàqa njaaloo ci àdduna bi soo ko ne woon jox ma sa doom bu jigéen ma njaaloo ak moom mu ne la yow nag ma yab yow yow ku ma yab nga yow déedéet pourtant li mu bëgg a defi fee loolu rek nga ko wax waaye lu gis nga lu bon kenn bëggu ko ci boppam même ku bon ki koy def fi mu nekk nii waykatu musique da ngay dégg mu ne man bëgguma sama doom way dana def tuuba doomam du way waaye day la xale bi rëcc way parce que doomu mbër moom bu ñu ko xasee ngénte xaalisu mbër moom foog mu bëri ci waaw ku ñu ngénte xaalisu mbër wala ñu ngénte la xaalisu musique ah li waa ji di wax koo xamante ne doole rek la sa baay di jaay boo amee doom bu mbëkk bu mbëkkewul it daal di nàññi bu nàññul it mbëkke nàññi mooy loolu nag di def waaw waaw mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog ku ñu nàmpal ku ñu nàmpal soowu nag boo nàññul it mbëkke waaw ku ñu nàmpal ku ñu nàmpal gigoos xam ngeen gigoos amoon na temps fii tubaab yi ñëw ne Sénégal bu kenn nàmpal ci sa ween na ngeen ut meew nit ñi ut ay biberon gis ngeen biberon yooyu année yooyu ay 72 ak jëm 80 ñi ci nampoon yëpp doole rek koo ci gis nii lay def ah non doole rek nag soow nag lañ namp ko waxal mu ne gis nga paa bi gis nga mère gis nga ah gis nga paa yooyu rek est-ce que soow nag la nag moom xam ngeen ne fu mu dugg béjjéen yi rek lay dugal nii doole rek la ñuy jaay même bu demee ci réunion sax bu ñuy wax. waaw fu ñu wax sax ñoo xam ne ndeysaan ñi même kàddu gi buy génn sax doole lañ koy génnee tëw tëw tëw mu ngoog moo tax baaxul waaw mu ngoog loolu moo tax li tax yàlla indil nit soowu nit mu ne na nàmp soowu nit du hasard ah Brésil wallaay ku jigéen ah gis ngeen waaw parce que ñooñu xam nañ xam nga ñun lu ñu dal tubaab bi dañoo dugg ci musiba ba xam ne ci musiba lañ dugg ñoom ñu ciy génn léegi nag musiba yooyu ñu daloon ñu ñu ne ñu jël leen tubaab yi loolu loolu mooy suñu problème tubaab yi dañoo dugg ci musiba ba xam ne ñoom alku nanu léegi nag ñu tëral ay yoon pour génn ci ñun musiba yooyu ñoom ñu nekkoon ñu ne acca acca acca def leen ngeen yóbbu ko Afrique ak ci jullit yi au lieu ñun ñu xam ne ñii ci musiba lañ nekkoon bañ duggee ci li amuñu jàmm buñ ñu joxee loolu ñu lànk léegi nag ñu jox ñu ñu ne ñun indi leen wala tey tubaab France dañ fay tere jigéen juy jaay boppam ah Sénégal boo ñëwee ñuy légaliser jigéen juy jaay boppam te Sénégal fan la jëlee woon loolu ca France wala aha cigarette ñan ñoo ñu koy indil du tubaab yooyu ñu koy indil ñoom tey dem nañ ba tere ko tere ko panneau publicité ci mbedd yi tere ko ci télé yi tere ko ci rajo yi tere ko ci place publique yi tere ko ci hôpitaux yi tere ko fu nekk ñu ne la boo bëggee tox yow kenn da nga dem fële nga tox bu xër nit ñi léegi ñun mu ngi ci suñuy panneau publicité mbedd yi mi ngi ci télé yi mi ngi ci rajo yi mi ngi ci mi ngi mi ngi fu nekk te ñee ñooñu koy indiloon te ñee léegi xam nañ ne baaxul parce que xam nañ li muy rey ci ay nit waaw fii dañ koy tere publicité mais waa ji da koy def ngandam cigarette paquet bi def ngando cigarette benn bi daal di bind benn avis dangereux pour def bu ndaw boo xam ne doo ko mën a gis bu tuuti mën nga gis paquet bi gis cigarette bi gis lépp romb bind bi te loo xam ne lii loolu la te loolu la waroon ngande nag boobu lañ waroon ngandeel mooy lii daf lay lor ci sa wér gu yaram xam nga nit luñ ko ne da lay lor sa wér gu yaram ba pare mu ñëw ne jaay ma te nañ lañ ko ni baaxul ci yow mu ne jaay ma lii da lay rey mu ñëw ne ana kii jaay mu ne maa ngi mu ne jaay ma li may rey kii kay xam nga ne amatul xel wala ah waaw mi ngi mel ne poson rek xam nga ne poson la soo ko naanee da ngay dee nga ñëw ne jaay ma poson ma ma ma ma naan ko lépp lu yàlla tere noonu la mel moo tax lu yàlla tere rek Cheikh Abdul Hamid Kiski nee na lu yàlla tere rek kenn du ko liir ba pare ne um déedéet mu ne lu lislaam tere rek boo ko rombee da ngay xam ne lii même bu ko yàlla tere la wo terewul woon nit waroon na jombal boppam def lii xoolal fen nga fen ñëpp xam nañ ne da ngaa fen ñu taaj la nag ñu la yow waa lii nii yow yaa ko waxoon nga nekk fa naan waa maa ko waxoon waaye waxeet loolu lan la ci lan la bokk kenn dootu la naw kenn dootu la respecté soo tàmmee ci dëkk bi di wax te du dëgg nga wax ko benn rëcc wax ko ñaar rëcc nga wax ko ñett dootoo rëccati ni pare nañ ci yow soo waxee ñu ne ah kooku day ay waxam jarta dóor sa doom waaw dégg nga kii lu mu wax nee na ministre de la justice France dañ koo ëmbal ah ah est-ce que loolu war na yenu maana en tant que ku yor justice ministre rek doyoon na waaye nga yor justice ñu ëmbal la loolu war naa jàngal li ñu ne yow maandu woo ndax boo maandu woon duñ la ëmbal léegi nag ku mel noonu bu continuer di yor justice bi ñi ñuy jugé fu ñu jëm ak ñay jugé dañuy alko kon yàlla na yàlla dimbali kon aaya yi mbokk yi yàlla daf ko adressé ahlul kitaab waaye nun ñii ñoo ko moom yàlla daf nu wax ne ñoom suñu defoon lii am lii suñu defoon lii ma defal leen lii kon loolu ñun ñii est-ce que li yàlla wax waa ahlul kitaab ñun bëgg nañ ko wala bëgguñu ko kan moo fi bëggul dugg àjjana kan moo fi bëggul yàlla jéggal ko bàkkaaram kan moo bëggul yàlla tuur ci kawam ak wërsëg ak ba mu ne wala ngaa ne gàññi ci kawam ñun ñëpp ko bëgg kon nag ahlul kitaab da yàlla adressé wax ji waaye ñun nii ñoo ko moom ñun ummatu sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax borom bi nenu law annahum sey fekkoon ne ñoom aqaamu tawraata wal injil taxawal nañ téere bi di tawraat ak injil di évangile bible bi ak injil bi buñ ko atte woon wa ma unzila ilayhim ak li yàlla wàcce ci ñoom min rabbihim mu bàyyee ko ci seen borom muy qur'an kon de la akalu doon nañ kon di lekk ndeysaan doon nañ kon di xéewlu xéewlu yàlla dana sotti ci ñoom dana yaatal wërsëg woo xam ne dana leen wër ndeyjoor ak càmmoñ mbooleem côté yi nee na haza ma waadahumullah li la leen yàlla dig waaw waaw suñu defoon li yàlla sotti ci ñoom wërsëg woo xam ne kenn du xam fu mu bàyyeekoo fu ñu làmb rek daal di daj la akalu doon kon danañ lekk min fawqihim seen kaw wa min taxti arjulihim ak seeni suufi tànk lu tax ndax xéewal yi dana baaw naan waaw kinaaya lii nag dàkkantal la gu yàlla bëgg a wax rek an basatu rizq alayhim ne yàlla dina yaatal wërsëg wi ba wërsëg wi foo dugal sa loxo rek daal di daj waaw ngoog nit ñi saa yi ñu ragalee yàlla rek yàlla defal leen xéewal walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard wallahi waa suuf bu ñu gëmoon yàlla ni ñu war a gëmee yàlla nee na danaa ubbi xéewali asamaan yi mu nga gis nga ñii tamit li leen yàlla wax suñu jëfe woon tawraat ak injil ak téere bi yàlla wàcc ci ñoom muy quran kon danañ lekk partout côté yépp yàlla nee na du ma yem ci loolu di leen may rek sax ay xéewal yoo xam ne day walangaan ci kaw ba ci suuf yi seen suufu tànk waaye yàlla nee na minhum am na ci ñoom ummatun xeet woo xam ne muqtasid dañoo digg doomu ëppaluñu waaw waaw waaw waaw ëppaluñu manqué luñu waxuñ ci isaane doomu yàlla la waxuñu doomu njaaloo la walakin qaalat abdullahi wa rasuluhu xeet woowu dañoo ne isaa jaamu yàlla la yonent yàlla la waaw waaw looloo tax wa lamma jaa lamma jaa annabiyul ummi bishaara isa alayhi salaam amanu bihi xeet woowu ba leen yàlla indile alquran alquran wax leen ne isa dana ñëw muhammad alayhi salaatu wasalaam annoncé leen lool ne leen isa yàlla subhanahu wa taala moo ko yónni woon ñoom xeet woowu dañ koo gëm ndax lan dañoo digg doomu woon ñooñ ëpp lu ñu ci mbirum isa mu ngoog gis ngeen moom la yonent bi ne ana daawatu ibrahim wa bisaaratu isa alayhi salaam man ñaan nga ma ibrahima ñaanoon mooy man mii man mii yonent bi bégale ba isa bégale woon nit ñi ne dinaa ñëw man mii la jàngeen ñaar yépp jàngeen ya isa wax ne sama ginnaaw dana am ku tudd ahmad ku ñëw jàngeen ibrahima ñaan yàlla ca makka ne ko yàlla sama xeet wi sama doom yi yónnee leen ndaw loo xamante ne dana leen jàngal diine dana leen jubal dana leen setal moo tax mu ne ana daawatu ibrahim man kat maay ñaanu baay ibrahima alayhi salaam waaye man maay bisaaratu isa maay ka isa bégle woon ne dinaa ñëw mujjantalug jamono kon mu ngoog moo tax yonent bi ali yàlla subhanahu wa taala ne am na ci ñoom ñoo xam ne ëpp lu ñu ummatun xeet la woo xam ne muqtasida dañoo diggu dóomu moo tax chaque jour jullit dafa war a diggu dóomu dañu tere ëppal yaa ahlal kitaab laa taxlu fi diinikum yéen waa ahlu kitaab bu leen ëppal ci seen diine jullit warul ëppal waaw ci lépp nag yàlla ba mu ñu ba mu ñuy wax dafa ñu ne ummatan wasata xeet wu digg dóomu ngeen moo tax dañuy jaamu yàlla su waxtu jaamu yàlla jotee dañuy woor waxtu woor julli heure julli waaye dem liggéey lekk naan sëy nelaw waaye jaamu yàlla ndax dañoo digg dóomu kenn waxuñu jaamu leen yàlla kese bu leen topp bu leen liggéey kenn waxuñu liggéey leen kese bu leen jaamu yàlla kenn waxuñu na déedéet lan lañu yàlla wax wala tansa nasibaka min ad-dunya waxsin kama ahsana allahu ilayk waaw dañoo war a digg doomu ñaar yi ñooy ànd sa ruu ak sa yaram ruu gi jaamu yàlla la yaram bi lekk ak naan moo koy dundal benn ci waroo ëppal meneen kenn waru la wax rek nga nekk làbbe man du ma am jabar waaw wala du ma am jëkkër wala du ma liggéey wala du ma solu du ma am kër du ma am nàngam du ma def lii damay toog rek damay jaamu yàlla kenn waxu la ko nañ la ne li jaamul yàlla liggéey bu ci nekk jox ko waxtoom dañu laaj benn boroom xam-xam ne ko jaamu yàlla yi ban jaamu yàlla ci gën bu ñu la laajoon jaamu yàlla yi ban jaamu yàlla moo gën looy tontu bu ñu laajoon fii nu toog nii jaamu yàlla yi ban jaamu yàlla moo ci gën lu nuy tontu ah julli déedéet gis nga de jaamu yàlla yi bu ñu la laajee ban jaamu yàlla ci gën xam nga looy tontu mooy bi jot ci waxtu wi ma nekk bi fa jot moo gën waxtu wi nga nekk jaamu yàlla bi fi jot ci yow waxtu woowu jaamu yàlla boobu moo gën ci yow bi julli jotee jaamu yàlla boobu moo gën ci yow bi jàng alxuraan jotee jaamu yàlla boobu moo gën ci yow bi koor jotee jaamu yàlla boobu moo gën ci yow bi saraxe jotee jaamu yàlla boobu moo gën ci yow kon waxtu wu nekk jaamu yàlla ban la fa sant su jotee booboo gën ci yow ah julli jot ñu ne la jógal julli nga ne déedéet man damay jàng alxuraan te dafa li gën ñu ne la lu tax nga ni waaw alxuraan moo gën a foor julli ndax gis nga su may julli alxuraan laay jàng kon kay ma dem moom la gars yi di soo leen a jógal julli ñu ne déedéet wala zikrullahi akbar ma toog di def as askar moo gën muy julli ndax yàlla neen wala zikrullahi akbar di daliloo loolu jógal julli mu ne la déedéet du ma julli ndax zikr moo gën a foor julli déedéet ndax zikri gën a foor julli diine ci chaque jour bu ñu bañee am problème dañuy bàyyi Seydina Muhammad jàngal nu ko waaw li oustaz di wax où quand comment nee na yooyu suñu jaamu yàlla yi du mat lu ñu dëppook Seydina Muhammad ci yii comment où ak quand ak kii ak pourquoi gis nga juróom yi suñu bëggee dëpp ak Seydina Muhammad juróom yi foog ñu def ko waaw dégg ngeen de juróom yi foog ñu dëppoo ceeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi nag li am ci sunu Sénégal gi mooy ay nit yoo xam ne ñoo gën a dégg yonent bi diine bi loolay war fi problème bi yonent bi ñëw ne lii waa ñu ñëw ne déedéet du loolu de lii la te yonent bi ne lii la léegi kii moo gën a dégg yonent bi arab wala moom la yàlla yónni mooy li waa ji wax keroog yonent bu daan jàpp tànk lu muy def da koy raxas moom mu ne déedéet da ngeen koy masa ndax aaya bi dane ah famsuhu bi ruusikum wa arjulakum mu ne yàlla dane ngeen masa seen bopp ak seen tànk léegi kon moom moo gën a dégg yonent bi alxuraan loolu lay tekki ah ah saa yu yonent bi firee benn aaya nangam sahaaba yi gis ko def ko Aboubacar def loolu Omar def loolu Ousmane def loolu sahaaba yi yonent bi 124000 sahaaba ñëpp def loolu benn waaye ñëw fii ci Sénégal daan ne déedéet du loolu de kon yonent ba daa juum sahaaba yi juum moom moo wax dëgg moom la yàlla yónni loolooy sunu problème gars yi téere bii di alxuraan yàlla ba mu koy wàcce ci kan la ko wàcce woon Seydina Muhammad téere bi kan ma ko doon jàngal sahaaba yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngal sahaaba yi sahaaba yi jàngal ko taabiin taabiin yi jàngalaat ko taabi di ko jàngale ba ñun ñu jotti ñun ñu ñëw fekke noonu lañ ko waxee ñun ñu ñëw bëgg ko dindi nga ñëw fekk nit ñi di julli nga ne man du ma julli nga ñëw fekk nit ñi di woor nga ne du ma woor nga ñëw fekk nit ñi di joxe azaka nga ne man du ma joxe azak nga ñëw yàlla ne aji leen màkka nga naan màkka jarta dem waaw am na xeer bu nekk fii ci ginnaaw stade bi foofu moo boo fa demee rek daanaka moom màkk benn la waaw gaa yëpp daal di bàyyi màkk daal di jubal ci xeer boobu loolu ban diine la ah waaw yenn saa yi nga ne arafaat ñu ne déedéet ñun suba la sunu arafaat waaw suba la arafaat suba la arafaat la gars yi taxaw maa nga dégg sénégalais bu ne déedéet déedéet déedéet ñun ñun waa sénégal suba la sunu arafaat fan ngeen di taxaw aa ngeen dem ngor ah Grand Yoff wala ngor ngeen dem ci xeer bu xeer yooyu ngeen taxaw boobu wala mamel ngeen dem ci xeer bi ngeen taxaw ci boobu ci mamel waaye sénégal nag amuñu arafaat nag wala ah kon nag dañu bàyyi xel diine ji diine mooy lu yonent bi jàngale soo bañee soo bañee alku li la yonent bi wax yem ci nga noppalu xam nga ki def lu yonent bi wax moom ëllëg amul lay yow lu tax nga def nii sa tontu mooy man kat yonent bi lii lañ ma wax loolu la def ku la ko wax nga ni téere sàngam téere sàngam dañ cee bindoon xadiis yonent bi jeex na waaye ku la wax nga def li nga naan waaw man sama pap ñu ne la sama pap ku ko yónni looy tontu sama papa kat nee na maamam ñu ne la maamam kenn yónniwu ko sama papa kat nee na sëriñam ñu ne la sëriñam kenn yónniwu ko woon man yàlla muhammad laa yónni woon moom laa waxoon wa ma aataakum rasul wa ma nahaakum anhu moom laa waxoon laqad kaana lakum fi rasulillahi moom laa waxoon yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu ajeana kon nag soo bañee am problème laajteel mbir sàngam naka la ko yonent bi doon defee benn booy nee na ma oustaz sunu kër dama am jàmm de bu gaa yi yuuxoo ba pare rek man leen yonent bi nii la ko defee woon wax leen ma yéen nuñ koy defee mu ne ñuy nakk-nakkal ma jóg def ni ko yonent bi defoon bàyyi leen ñu toog mu ne sam papa saa yu waxee rek ma ne ko papa mu ne ah ma ne ko léegi man weddi ma li nga wax waaye yow da nga may indil nu ko yonent bi defee woon léegi wax ma ko mu ne paa bi di nakk-nakkal mu ne ma jóg kàbbar daal di xabdu ne ko saa yoo ma indilee nu yonent bi defoon rek ma fekk si la chaque jour bu ñëw fii dars jeex na xoolal léegi sa kilifa bëgg laa wax defal nangam te xamul nuñ koy defee waa man kat lii lañ ma ne loolu la sëriñ bi doon def mu ne ko papa man yonent bi laa la wax de soo ma waxee rek yonent bi nu mu ko doon fi rek léegi ma ñëw ci yow wax ma ko gaawal balaa may julli jot na de ne barki dem papa ina ko ne xaar ba ma dem ma laajte ji mu ne waaw kon maa ngi ci yonent bi li mu nekkoon ba nga laajte ji ba ñëw ndeysaan wala gis nga dëgg boo ci nekkee même boo jàngul lu bëri kenn du la mën a yey même bu sa àllilu soriwut maadaama yaa ngi ci dëgg kenn du la mën a yey su benn waaye demoon jàng ba nekk docteur sax bu ñëwee su waxee yow nga daaneel ko da nga koy bàyyi mu làkk arab ba sonn mooy seen waajooju nekk ci télé yi rek di di di di def ay soo di def ay soirée ah gars yi dañ yaakaar ne arab yi muy làkk arab la maa ngi fàttaliku bi ma gënee nekk xale dama fekke woon benn conférence boobu maa ngi woon ci benn daayira ñu dem sëriñ bi di def conférence mu jékki-jékki rek daal di wax benn aaya bu rek baas bi ñëpp di xëm ma waay ma jommi ma bind aaya bi ma xëy rek dem école ma jox suñu benn oustaz ma ne ko aaya bi lu muy tekki fekk dafa dafa ne dama dem ci jàkka yonent bi mu ne ma toog ngelaw lu sedd daal may dugg mu ne mu wóor ma ne fii rawdatun min riyaadil janna mu ne ma jékki-jékki xool nday joor rek ma gis war rak bu asfala minkum rek gaa yi waa taa gaa yi yuuxu conférence bi jaxasoo nit ñi di xëm tëtët ma ne allahu akbar ay sëriñ bi gën li mu gis garaaw na sëriñ bi li mu gis garaaw na ma bind aaya bi war rakbu asfala minkum mu ngi suratu ana xaafis yi mu ngi suratu tawba ah anfal ok war rakbu asfala minkum léegi xam nga lu muy teg ndeysaan ay Sénégal dañ leen nax ak kaña yenn saa nga dégg ñu ne al waliyu di waliyu la waliyu koo waliyu fekk nga saa nga ngandal waaj diw cheikh la diw muqaddam la te baa di buñ ko waxee ci arab ne dañ koy ngandal nga defa ne lu rëy la fekk du dara te baat bu ñu wax arab rek yow mi déggul war nañ la ko wax ba nga xam lan la ñu bañ la cee nax loolu mooy sunu problème ndeke war rak bu asfala minkum mooy sete Abu Sufyan caravane Abu Sufyan keroog Badr bi yonent bi ko jijee Abu Sufyan ah piégé ko Abu Sufyan nandu piège bi daal di rëcc jaari jaari ci suuf tefes ga ah ca ci suufu montagne ya yàlla ba muy message ci alxuraan di wax ne abu sufyaan da yow yonent bi ba nga toogee place sangam di xaar abu sufyaan yaag sa yaag say armée abu sufyaan dafa teggi jaari jaar ci suuf loolu aaya bi di tekki xoolal nag waa ji fa mu ko waxe ak nam ko waxee ak ña doon yuuxu léegi lan lañ doon yuuxu loolu beneen misaal bi ngeen ci jël mooy léeg-léeg nga dem dégg ci mbedd yi ay nit samp seeni rajo di def ay daayira di di way nga dégg ñu ne wajaa rabbuka ñu ne wajaa rabbuka wal malak safan safan safani xool leen loolu aaya bi li muy teg xool leen wajaa rabbuka wal malaku safan li yàlla di wax ci aaya boobu ni mu dangereux ay nit di ko fecc di fettasu wajaa rabbuka waja gaa yi di tëgg wajaa rabbuka wal malak safan safan safani daay la nga xam ne doomu aadama yi xamuñu li ñuy def lan la xamuñu ko xamuñu fu ñuy teg seen tànk yàlla ne ëllëg yowmal qiyaam sa borom day ñëw malaaka yi sàppe ñu takk safara jahannama indi ko safara di yuuxu loolu nit dina ko fecc inna ah wa jaa rabbuka wal malaku foofu loolu la yàlla lu ci tegu wa ji a yowma isim bi jahannam xam nga yoon dim lu wax mu ne tuqaadu bi sab'ina alf zimaam fi kulli zimaamin sab'una alf malik ñu seene ko juróom ñaar fukki junni seen seen bu nekk juróom ñaar fukki junni malaaka téye ci safara di leen daaneel loolu nit dégg ko di fecc kon xamul li muy jàng lan la li muy way lan la waaw saf loolu mooy sunu problème mooy dañuy dem rek di tëlëx tëlëxi waxuñu nit ñi dëgg joxuñu jaamu yàlla yi fu ñu war a teg seen tànk loolu moo indil réew mi problème dëgg-dëgg problème bu dul jeex nga gis kuy way alxuraan di ko fecc fekk yow aaya jahannama ngay way nga koy fecc jahannama ah anan yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko sunu borom nee na ñii minhum am na ci ñoom ummatun xeet boo xam ne muqtasida dañoo diggu doomu waaye mu ne wa kasirun minhum li ëpp ci ñoom nag saa ma yaamaluun ak a ñaaw ak a bon la ñuy def waaw gis nga lii ahlul kitaab la yàlla doon wax seeni pas-pas bi ñu leeralal ku mel ne abdullah ibnu salaam ak najaasi ñooñu moom dañoo bokk ci xeet woowu yàlla naan ummatun muqtasid waaye mu ne wa xalqun kasir laa yaxsawna adad kenn mënta takk seen lim ah wa kasirun min ahlil kitaab bëri na ci waa ahlul kitaab yàlla ne ay saa ay qabuha ak a ñaaw seen i pas-pas ak a ñaaw seen i jëf lu tax ndax lépp kéeféer la ak bokkaale ak bon ak yàq waaw li kese la jaamu yàlla bu ànd ak ay sa fecc bu ànd ak sàngara bu ànd ak bu ànd ak bu ànd ak bu ànd ak benn waay tuub na fii ci jàkka ji fii ñu jox ko micro bi ne ko waaw lu tax nga tuub mu ne dama seetlu islaam jaamukaay yàllaam yëpp dafa tàqale góor ñeeg jigéen ñi islaam dafa fonk ay jigéenam da leen di muur ba pare jaamu yàlla bu jotee dafay tàqale góor ñeeg jigéen ñi waaw mu ne waaye ñun nag man fa ma nekkoon lépp rek loo def baax na góor ñee jigéen ñi ñooy bokk lépp ñoo bokk place yi jaamoo yàlla ñooy jaxasoo bopp neen yi yaramu neen yi mu ne lool nag man moo ma jaaxaloon ci loolu laa nekk loolu da nekk di gëstu tey ba dugg ci lislaam dëgg la ana nit bu bàyyee xel tuuti rek xam ne lislaam mooy dëgg waaw loolu tax ku jàng tuuti rek jege lislaam bañ a xool tey tubaab yi ni ñuy sabotee ak yenn jullit yu réer yi ñuy def li ñuy def parce que am na jullit ñoo xam dañoo réer réer réer ba yàq waaw ñooñu tey ci seen i jëf seen i geste la tubaab yi di di di occasion wu ne di yàq islam daan xoolal lii comme waa ji barki dem lim def France jël benn avion fekk ay nit nga rey kenn xamul jël oto dawal ko ci awee ay nit bu doon ay mbelantaan la sax islam daf la ko tere waxuma laag nag ay nit wala takk bomb dem ci jàkk maa ngeeg benn benn logiciel benn benn benn carte bu benn waay bind nee na tey jullit yi fi ñu toll da ngay gis jullit bu takk bomb saaga Amérique saaga Israël nga kontaan nga yaakaar ne fa la jëm mu dugg ci jàkk explosé ko xoolal barki démb ki ngeen gis mu explosé jàkka yonent bi dem ba jàkka yonent bi dafa yóbbu bomb ñëw ne garde yi damaa bëgg a ndogu xale bu ndaw dama bëgg a ndogu ak yéen garde yi ne ko bismillah yóbbu ko ba ci biir jàkka ja di lal si jaada ji mu explosé bomb bi ñëpp dee ab jullit xoolal loolu jàkka yonent bi su julli di explosé jàkka yi béyegi ci jàkka yonent bi fu des fu desati ci àdduna bi lan moo leen dugal ci pas-pas yooyu lan moo leen ko jàngal lan moo leen wax ne lii diine la yow reyatuloo ay yéeféer mais ay jullit ngay rey rey ay yéefee sax santuñu ñu ko noonu waxumala ak nag yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp kon mbokk yi lii mooy sunu darsi tey noo ngi jégglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.